waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di remercier ñi ñu fi fekk ñëpp may tàmbali d'abord di remercier gouverneur ak euh, ñi mu àndal bi mu fi ñëw tey maa ngi ànd ak ñaari ministre ministre bi nga xam ni moom moo yor wàllu commerce ndax njëg yi lu ko yitteel la lu yitteel président de la République la ministre bi nga xam ni moom moo yor wàllu développement communautaire muy Samba Ndiobène moom aussi wàllu équité loolu ci liggéeyam la bokk Euh, man ma ñëw en tant que premier ministre mais aussi nekk ministre de l' élevage kon ñi seq mbir mi yëpp teew nañu fi tey euh, ñoom seen bopp sax dinañu ñëwaat fan yi gën a waxaat ak askan bi ci matukaay yi nga xam ni gouvernement bi jël na ko pour tabaski bi mën a jàll ci ci ci ci jàmm. Euh, gis nañu sànjara gis nañu Seve Sevekaay fii ñu nekk nii gis nañu tuubaatul ci biir région de Thiès muy région bu am solo ndax xar yi balaa muy ñëw dakaar fii lay ñëw. fii am nañ fi excédent déjà euh, dinañ ko aaroon noo waxee euh, xar yi léegi ñu ngi leen yàpp fii ci ay camion ñuy dem Dakar maa ngi koy wax barki démb c'est à peu près 4000 euh, moutons mooy ñeenti junni xar ñoom ñooy dugg Ndakaaru bés bu nekk kon bu yàggee rek léegi ngeen gis xar yi bari Ndakaaru lool mais Ndakaaru dañu am problème xat mooy chantier yi ñu dafa gën a xatal Ndakaaru ak aussi yor xar Ndakaaru yor fa jur dafa metti donc waa Ndakaaru duñ teel a jënd ñiy jaay aussi buñ fa toogee yor seen i xar xar mi day day day gën a cher ndax dund bi day jafe moo tax dañuy bàyyi ba mu des ay fan yu néew rek ñu doog dugg ndakaar bu ngeen seetloo euh, li ñu ko waxee léegi ñu ngi gën a bari fii jëm Thiès seen destination ñi ëpp ci ñoom ginnaaw marché Thiès mooy yóbbu seeni xar Ndakaaru ou euh, consommation bi foofu la gën a bare kon li ñu gis dal na xel euh, disposition yi ñu jël yëpp. gis nañ ni respecté nañ ko moo xam ci aliment de bétail la moo xam aussi ci yombal dem bi ak dikk bi li jëm ci xar yi loolu aussi gis nañ ko loolu yëpp fi mu nekk nii teg nañ ci sunu bët gis nañ ni yomb yomb na. man daal waxaale naa léegi. gis naa fi xaru soixante mille man waxaale naa ko euh, fukki junne ak ñaar gis naa xaru fukki junne ak ñeent euh, du bu bu gënee bari rek njëg yi day wàcc xam nga commerce moom lu waaw offre ak demande la ñiy jaay ak ñiy jënd. ñi ñii ñii jënd ñii jaay bu ñu jàppee nii ñii jënd ñiy jënd bareeguñu dañuy dañuy dañuy teengal mbir mi vice versa kon euh, jàpp nañ ni li amoon daaw yàlla mën na ñëw may ñu am ren euh, lu ko tane euh, lu ko tane ci loolu la ñuy liggéey ci loolu la ñuy nekk moom moo waral mesures yi nga xam ni jël nañ ko am na ñu ngi maintenant ñu ngi ñuy wax ci wàllu sécurité incha allah dinañ ko yokk am na fi gaa gis ngeen ko dinañ ko dinañ ko yokk li ko waral aussi euh, jamono yu mel ni toujours de ànd ak yom ànd ak euh, am ñoo xam ne dañuy dugg ci biir mbir mi fekk jënduñu jaayuñu leneen lañuy lañuy def kooku nag état daf ci war a daf ci dina ci gën a taxaw ci wàllu sécurité euh, pour gendarmerie ak police bi may ñëw tey ci suba wax naa ci ak président de la République mu doon lu ko yitteel wax naa ak ministre de l'intérieur ak ministre des forces armées incha allah dinañu yokk seen taxawaay may féliciter maire yi ñoom ñëpp ñëw nañ fi. mais gis nañu ci localité yi def nañ ci courant def nañ ci def nañ ci ndox et ça c'est important li ñuy laaj léegi sax nañu yokk bu ñuy laaj nañu yokk rek day tekki ni xar yi bari na ndax bi nekk bu nekkoon li fi nekk daaw fi nekk kenn du yokk mais bu ñu nee yokkalee ñu surtout fii ci kay mooy xar yaa ngi ñëw. daal di sant euh, premier ministre euh, c'est pour rassurer aux Sénégalais xar moom ñëw na depuis ce matin ñu ànd xar yi ñu ngi ni danga rek seen gis ñu ngi nalee xar yi. yomb ba dee yomb xëy na quatre-vingt mille ku am quatre-vingt am nga xar ku am nga soixante-quinze am na xar encore xar tabaski loolu yaakaar naa <laughs> loolu dafa dafa dafa loolu dafa leer. loolu quatre cent mille c'est les c'est les VIP c'est les les séeréer ñu ñu ngi bëgg léegi fuy tuuti ngeen baal ma ñu dem ba quatre cent mille mais loolu encore tout dépend de la de la personne les moutons vraiment ne sont pas chers quatre cent mille y a même un million. il y a a même un million il y a six cent mille mais pour un Sénégalais lambda xar bi mu ngi jar soixante quinze mille quatre-vingt mille. da dal lool incha allah sant yàlla quand même. xel war a def ñu ngi jógee ci intérieur du pays ak Mauritanie ak euh, le Mali et Burkina et même euh, euh, un peu le Tchad un peu. mais essentiel les moutons viennent du Sénégal aujourd'hui ça veut dire qu'on commence à avoir autochtone à mouton autochtone ñu ngi ñu ngi doog léegi am autochtone à Parce que 95% euh, aujourd'hui, ou bien jusqu'à 20 à 50% sont des moutons du de fils Sénégal. Donc, ça veut dire un an, deux ans, les tout le Sénégalais, dem euh, dem fenen di djigane xar ñu pot de produire fi au Sénégal alhamdoulillah rabbil alamin je voudrais vous remercier et me réjouir de cette visite je visité la région de Thiès qui est une région très proche de Dakar et qui est aussi une euh, région qui consomme beaucoup festival de, durant Tabaski. Et c'est aussi une région d'éclatement. Donc nous avons visité Sandiara ce matin, euh, Toubatoul et Sevekai. Je dois noter la disponibilité des, des moutons aujourd'hui. Effectivement, les statistiques qui me sont données par les services compétents du ministère de l'élevage euh, laissent entrevoir qu'il y a aujourd'hui, au, à date, un excédent de près de 20 moutons. Donc on a à peu près 480 000 moutons qui sont disponibles à l'intérieur du pays pour une demande euh, de, de, de, de près de 800 000 moutons. Donc euh, nous sommes sur bon trend parce que les moutons continuent d'arriver. C'est une visite euh, qui permet aussi de voir les, les efforts du gouvernement. Et ça me le commandement territorial, les différents préfets, de remercier aussi les maires, que ce soit le maire de Sandiara, le maire de Toubatoul, Sévécaï, euh, Gundian, tous les maires qui se sont mobilisés pour euh, nous, accueillir et faire avec nous cette visite. Mais voir remercier surtout les, les acteurs de l'élevage. Ils sont bien organisés, qui sont engagés et qui, qui travaillent très bien. Je pense qu'ils ont une parfaite maîtrise. À entendre tout à l'heure le président Arona Galoya, ils sont en train de, de, de Galoba, ils sont en train de travailler sur une répartition équitable des moutons au niveau de l'ensemble des localités de, du Sénégal. Je pense que cela est extrêmement important. C'est vrai que nous avons un peu de tension au niveau de Dakar parce qu'on a, on a, on a un déficit sur Dakar. même si on est excédentaire là-haut, ici à Thiès. On est excédentaire. À Dakar, il y a déjà des problèmes d'espace. Il y a aussi des problèmes euh, liés au fait que, euh, en règle générale, les, les, les éleveurs veulent venir à Dakar au dernier moment. Parce que ça permet de les garder le moins longtemps possible. Parce que le, le, les aliments coûtent beaucoup plus cher à Dakar, euh, Dakar qu'ici. J'ai vu aussi la disponibilité des aliments de bétail, on l'a constaté. Ici à CVK, c'est 110 tonnes qui sont disponibles, subventionnées à 50% par le gouvernement. C'est une mesure qui est prise par le président de la République l'année dernière. On l'a vu aussi à Toubatoul, où nous avons trouvé 80 tonnes, Et euh, aussi à Sandiara. Là aussi, je salue parce que ce sont les éleveurs qui organisent tout ça. Et j'ai noté à CVK quelque chose d'assez particulier qui m'a beaucoup C'est-à-dire même dans la répartition, ils ont fait une équitable entre les éleveurs sénégalais les éleveurs étrangers. 50-50. C'est-à-dire il n'y a parce que le choix du gouvernement, le choix de la République, le mouton ne coûte pas cher. Et nous à travers les prix, effectivement. Aujourd'hui, nous avons vu des moutons qui tournent autour de 75 000, 70 000, et jusqu'à quand même des prix euh, qui peuvent être assez élevés. Cela veut dire que aujourd'hui, il est possible à tous les Sénégalais qui le désirent de pouvoir, euh, de manière tout à fait normale, de, de, de, euh, en euh, assurer une correcte fête de Tabaski, qui est une fête musulmane majeure, mais aussi au Sénégal, c'est une fête qui est très particulière, parce qu'il y a quand même des relents qui sont vraiment de chez nous, qui font que le gouvernement est obligé de prendre toutes les dispositions pour assurer un bon ravitaillement. Les questions de sécurité nous ont été posées un peu partout. Je dois saluer la présence des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble des points de vente. J'ai déjà saisi le ministre de l'Intérieur pour que des dispositions additionnelles soient prises au niveau des points de vente. Après l'éclairage, après l'eau, la disponibilité de l'eau, après la disponibilité des aliments de bétail, que la sécurité aussi soit assurée. Parce que c'est une période où il y a beaucoup de risques, parce qu'effectivement, l'argent circule beaucoup, et ça peut quand même attirer, euh, disons, euh, certaines personnes mal intentionnées à venir quand même euh, essayer de perturber euh, l'ordre et la quiétude. À 12 jours de la Tabaski, nous avons à, à date un excédent de 20 000 moutons sur le territoire national. Je pense que cela est, Euh, est très appréciable par rapport à l'année dernière déjà. Ça, c'est très appréciable. Nous avons un besoin de 810 000 tonnes, dont 209 000 à Dakar. Et sur Thiès déjà, nous sommes excédentaires. Et vous voyez un peu que ça arrive, parce que les moutons viennent un peu de loin, de, de Linger, de Raneru, comme il l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de moutons qui viennent aussi de l'extérieur, même si la politique d'autosuffisance du gouvernement commence à porter ses fruits. Nous importons de moins en moins de moutons. Mhm. Mais le marché sénégalais est un marché attractif. Nous sommes dans la zone UMOA, donc il est bon que nos parents de, du Mali, du Burkina ou du Niger puissent venir, mais aussi la Mauritanie qui n'est pas un pays membre de, de l'UMOA, mais la Mauritanie est un pays avec lequel nous avons des relations traditionnelles. Et c'est un grand pays d'élevage et nos parents de Mauritanie viennent aussi pour euh, vendre Donc il nous appartient en tant qu'autorité étatique d'assurer la sécurité des personnes et des biens pour permettre à tous les Sénégalais de pouvoir, euh, dans la tranquillité, pouvoir en tout cas célébrer leur euh, tabaski. À la date d'aujourd'hui, nous avons décaissé déjà 300 millions. Donc ça, j'en suis sûr. C'est un dossier qui est particulièrement suivi et qui est géré d'ailleurs par les éleveurs. Nous allons encore rajouter de 300 millions, le président de la République l'avait décidé. Donc nous avons engagé la procédure de mobilisation de ces ressources. Comme vous l'avez constaté vous-même, nous avons des aliments de bétail disponibles ici à Sévécaille, c'est 110 tonnes, et il, euh, il y en a euh, dans l'ensemble des points de vente significatifs. Et, elle est importante. À l'échelle, exactement, les éleveurs pourront vous parce que l'État met euh, la trésorerie à disposition et le, les, les éleveurs s'approvisionnent directement chacun dans sa localité, au niveau des probandiers. L'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, en même temps un acteur, un éleveur, un grand berger, ou, bien même un petit berger quelque part. Euh, je suis animé par euh, un, un, sentiment de euh, satisfaction d'avoir aujourd'hui euh, le Premier ministre. En même temps, c'est le ministre de l'élevage. C'est d'abord de le remercier. Et surtout, on a depuis ce matin, euh, on est on a fait Sandiara, on a fait Toubatoul, on est là aujourd'hui. Moi, je suis, je rentre, je, viens là, intérieur du pays. C'est d'abord, c'est de rassurer d'abord l'État du Sénégal, le Premier ministre en tant que ministre élevage, les moutons sont déjà à l'intérieur du pays, les moutons sont là. Je viens ensemble, je viens de montrer des échantillons. Les moutons c'est de aujourd'hui le prix d'abord vous allez en venir certainement c'est de 80 000 à, à, à 150 000 ça, ça dire a, toutes les bourses sont là aujourd'hui ça dépend de la poche maintenant les prix les moutons sont là les ne sont pas chers c'est pour vous rassurer que les moutons sont pas chers ils sont là c'est vraiment en résumé c'est partout pareil dans les oui je dis moi je, on de rentrer dans le pays aujourd'hui là où nous, sommes aujourd'hui il a les moutons qui quittent Euh, suñu malais pour, aller en, en Ziguinchor, c'est qu'on veut l'équilibrer. Euh, euh, Nation aujourd'hui, les moutons sont à l'intérieur du pays. C'est pour rassurer les Sénégalais. C'est pour rassurer les moutons sont là. Encore, il connaît encore d'être là. le camion en train de, de, les moutons, les moutons sont là. Vraiment, c'est pour vous rassurer que les moutons sont là. Il connaît encore à être là. Euh, qui, sont, euh, la tension actuelle du pays Non, il pas. Pourquoi avoir peur Puisqu'il y déjà la sécurité, l'État a donné euh, donc euh, l'assurance qu'il y la sécurité aujourd'hui à 100%. Le surtout en lui-même, je défends. Mais déjà, l'État a pris des dispositions pour dire que je le veux, la sécurité elle est assurée à 100%. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, on a 30 à 40 camions par jour qui, qui, vont de rentrer à Dakar. Donc il n'y a pas de peur. D'abord, on n'a pas peur, on, Pas, peur quand même, on éleveur. Voilà, D'où nous viennent la, la majeure partie des moutons qui sont présents au niveau du Sénégal oui, à l'intérieur du pays, c'est euh, dans le département de Linger, dans le département de, de, Donc les, les, les régions les moutons sont déjà, en tout cas, dans les, ces régions. Mais euh, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, il y a donc il y a la Mauritanie y a, le Mali, donc il y a le Burkina. Aujourd'hui, je vous, je vous dis, les moutons sont en de venir à cent dans l'intérieur du pays.